suñu waxtaanu tey fàttali la rek ak ñaan ndax ñun yàlla dafa def ñu nekk ay nit ñoo xam ne dañuy déglu ñu gis lu bëri loo xam ne cigarette daf koy def ci doomu aadama yi. ñu gis yërmande bi nga xam ne am nañ ko vis vis ak population bi nga xam ne ay innocent lañ waxuñu leen lan moo xew ci cigarette ñu gis ñu ngi loru ñu ngi ñàkk seen bakkan ñu ngi ñàkk seen santé di ñàkk seen xaalis ci loo xam ne jaru waay waay waay waay sénégalais bi doomu Sénégal bi yow mi jàkkaarloo ak man man Cheikh Omar Diop maa lay ñaan man maa lay ñaan te di la fàttali valeur bi nekk ci yow ak njëriñ li ne ci yow waaye waay bul sàggan ba cigarette de ko yàqal te yow ku ku ñor nga ku mat nga ku yeewu nga ku responsable nga dëgg-dëgg am na loo xam ne waroo sàggan waroo sàggan nit di ko gis ci yow surtout sa famille surtout sa doom surtout sa rakk surtout sa nijaay wala sa dëkkandoo bi nekk ak yow ci kanam di la gis ngay yor cigarette bu tux manqué manqué boobu di feeñ ci yow yow mi tux cigarette bi waaye waaye xanaa dangaa fàtte nit ñi am nañu yaakaar ci yow man Cheikh Omar Diop maa lay ñaan cigarette boobu nañ ko bàyyi man maa lay ñaan cigarette bu ko laalaat parce que yow dañ dañ dañ dañ laa yaakaar yërmande bi nga xam ne man am naa ko ci yow ñëwante gi nga xam ne am naa ko ci yow man damay gis sama bopp ci yow soo ma la gisee ngay tux cigarette sama yaram day daw damay xam damay xam ne maa ngi ñàkk sama mbokk ndax dëgg-dëgg cigarette ku xamoon ak sàngara li muy def doomu aadama dëgg-dëgg kii tux du ko def naam am na ñoo xam ne xam nañ ko waaye seytaane jàpp na leen ba mën leen ba nga xam ne mënatuñu xam naka la ñuy def pour tàqalikoog li nga xam ne mooy cigarette boobu maa ngi lay ñaan nga toog ñeent fukki fan incha allahu danaa la jox sama numéro yow ñeent fukki fan nga toog bul tuux bul naan nga xool am na loo xam ne soo ma ooyee téléphone ma laaj la ko ci sa bopp nga wax ma ko ci sa bopp su amee ci yow rek am na lu ma lay digal nga jàng ko nga wax ko tëfli ko ci ndox nga naan ko keroog ngay teqali koog loolu dootoo tux dootoo naan te doo ma fay benn dërëm ñaanu ma la ko parce que man dama laa yërëm man damaa gis sama bopp ci yow bugguma mukk mukk mukk ah ngay am ñàkk wér-gu-yaram ña bugguma mukk ngay am ñàkk wér parce que ñàkk wér baaxul. te ñaar la boole daf lay doyee dal sa njaboot dafay yàq sa alal ba pare nag xëy na wér gu yaram man Cheikh Omar Diop maa lay ñaan yow doomu Sénégal yow yaakaaru Sénégal maa ngi lay ñaan man Cheikh Omar Diop ngir yàlla ak yonent bi ngir diine ji ñu bokk ngir yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu bokk ngir yàlla mi nga xam ne mooy suñu borom bàyyil cigarette wasalaam salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf